Ibrahim santaat yàlla mi ñu may ñu fekke ko ay ati at juróom-ñaar fukki at ak sofla ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci ginnaaw ren ñu fekke ko muy ñaar fukki at juróom doon nag daaw mais daaw moom ko fi daté ñëpp ba dara xewul moo tax su ñaar sax sama mbokk mi nga naan ci def parrainage yi ci e 2020 euh, ma def ci corona mu ne ma ah da nga ko tuddee woon corona ma ne ko corona <coughs> la euh, at mu jëloon jàppale rawatina kuréel yi nga xam ne mi ngi mel ni kuréel jàmm ji nga xam ne suñu mbokk Racine Sow moo ko jiitee prix yi ngeen di gis bi mën naa ni 80 pour cent ci prix yi ñoom ñoo ko joxe ñoo euh, organisation Ahmadiyya Tijaaniyya bu Tëngéej man daanaka léegi ay diplôme doo ko lay defar wut ay quelques kamil la lépp ñoom ñoo koy def da damay am yàqin dañu ko indi euh, te lu lu lu euh, arab yi dañu makaane laahi daa moo tasal lépp loo xam ne yàlla ko tax a jóg day sax day dëkk day day sax day sax day am continuation te day dëggu kon nag sama diggante grâce yi maa ngi koy fësal ndax jotaay yi lu mu gàtt gàtt euh, fësal ci sa diggante ak ña ñor dëgg-dëgg doon ñëpp a ñor waaye ñi nga xam ne loo neñu ñu ne ca loo jàpp ñu jàpp du ñu ñëw sa cérémonie ba ci digg ba ñuy gett ku ci amoon cérémonie dem ba ci digg ba amee saalum jóg du la neex kon nag man doon sama sago bu cérémonie bi ñëwetee ba waxtu tisbaar yaatu na nit ñi bàyyante xel ni li ciy des parce que man toujours dama bàyyi xel yooyu yëpp euh, loolu benn na ci euh, ba ci def nañ ko ci contexte boo xam ni sama jigéen joor dafa xër rek feesal stade ak 16 mais man dama ne kon lépp bu mu passé ay 316 ndax ma ne ma 204 laa defaroon 204 laa defaroon jàppoon ni euh, euh, comme da ngay woo waa docteur di woo ambassadeurs yi di woo gouverneur di woo autorité yi war ngaa tënku ci lañ wax ñoom mooy te ñoom li ñu mooy nit ñi di sorante di takki masque donte bi may wax ni dama tekk sa masque tekku nii euh, ñi ngi sant yàlla nag ci may gi ñu may def ko di santaat yàlla ci fësal gi ñu sàmm ko réer nag moo tax ñu tudde ko Sidy Lamine Niass ndax jàmbaar la woon amoon taxawaay te bëri na lu mu daan dox Touba li ko ñor dafa may woo ni ma waxal ma sëñ Basir lii wala defal ma li sëñ Basir wala waxal sëñ Basir moo ma wala ne ko maa ngi koy woo jotuma ko wala ne ko ëllëg naa fa ñu indil ko nangam nit nag bu fekkee ànd àgg naa ak yow ci complicité boo xam ne day defar complicité boo xam ne day servir l'islam di servir soufisme fu ñu mës a laal tasawuf Sidy Lamine Niass taxaw na defaan tasawuf a bëgg a cof cof ay gone yu ndaw yoo xam ne nga jóge ci Tanzanie di bëgg a opinion nationale bi Siré Amias yemu euh, weer ko dénigré sa téere pour yee conscience sénégalaise yi kon kooku na ne njàngam sax mën naa ne amul doctorat amul yenn maîtrise yi ñuy wax mais gëstu ak nangoo sonn ak nangoo bàyyi xel umma bi moo tax li mu bind ci téere kenn xamul nu mu toll bi ma xalaatee bis bi ni woon dama koy tudde diw sama mag Ahmed Khalifa Niass ni ma ah tudde ko Sidi de mérité na ko ndax diw mi nga tudde Sidi nga ci jublu ndax bëggul neex Sidi nga ci jublu bëggul neex ko bis mu ne ko nag loolu de xalaatoon naa ko mais dama ko doon bañ a tuddee ñu koy gisee neneen mu ne ma tuddee ko ko kon nag Sidy bis bi moo ko moom. waaye nag bis bi aussi ñu ci sargal suñu président Macky Sall ni ma ko waxee léegi sama bi discours muy jàmbaar am taxawaay taxawal plan Sénégal émergent plan boo xam ne dafa taxaw pour suqali Sénégal plan boo xam ne dafa taxaw ngir suqali koom-koomu Sénégal plan boo xam taxaw ngir suqali diine Sénégal waaye plan boo xam ne dafa taxaw ngir suqali ndaw ñi xam nga ne bëkki démb woote na ca jam ñaajo ci lépp loo xam ne dañu ciy jaar pour mën a sauver la jeunesse ndax xam ngeen chômage ak euh, ñàkk yaakaar bokk na ci liy indi découragement ci nit ñi bokk na ci loo xam ne aussi mën naa jur fitna sax ci am réew kon nag loolu saa su ne moom mi ngi xool point yi yi suuxat loolu lii di plan Sénégal émergent mooy plan boo xam ne dem na ba 2039 ci ni ko borom xam-xam yi ak ñi xarañ bindee te moom xam na ne 2039 du ko fekk ci réew ñëw bu jaaree fii Sénégal dina am kon nag moom it ñu koy félicité baax a baax a baax waaye ni beneen nuyu ak cant Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké barki démb laa dem ci mu si télévision yi laa waxee ba ma demee lettre bi ma ko baa ngi fees del nit ñaa ngi xëccoo ko joxee lettre bi téye na lettre bi lu mat juróom-ñaari minute wala fukki minute di jàng lettre bi bi mu paree dana ma lépp ci biir lépp mën na te ñu ngi koy defal kilifa nag boo ko amee mu lay encouragé di la motiver di la jaajëfal di la gunge kooku dafa jara sant dafa jara ñaanal maa ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi li mu bëgg li mu bëgg a xam-xam yàlla defal ko tawfiq xam nga li mu yëkkati ci Touba état sa attunu ko ndax man toog naa Ablaye Wade ca ca Méridien mu ne muy wax benn kilifa ni ko defar université yombul sëñ ko doon wax sax boobu mën naa jaar ne président ay milliards a koy defar te neewul réew sàngam mu ci dimbali neew état sàngam mu ci dimbali taalibi sëñ Touba yi ak ñi bëgg xam-xam la ko sas te sasu si kenn dara sax da ko ubbil ñëpp rek moom it lu mu am def ci te gis ngeen liggéey bi matul sa at waaye gis ngeen fa mu pare na taax ya pare na programme bi pare na yaakaar naa balaa yàgg da ngeen gis ni des sa des na ko jàngee <coughs> université boobu nag li ñu ci jublu mooy ñu bañ a jàng lu ñu war a jàng ndax xam ngeen xale yi ñoom Babacar Ndaw ñi euh, a jàng ñu jàng xamu tubaab bi jàng loo xam ni ki histoire tubaab bi histoire maamu tubaab yi mokkaloo te duñu xam seen tubaab duñu xam Alaaji Maalik duñu loolu na la si mu taxaa bëgg mooy jàngal ndaw ñi seen i maam jàngal ndaw ñi soufisme jàngal ndaw ñi pas-pas bu leer jàngal ndaw ñi xam-xam boo xam ne dañu ci bëri jëriñ defal seen euh, de jury bi nga xam ni chaque année ñu constant démb dañoo yendoo liggéey ci lii lii aussi dafa dafa nañu ko ay ay daara alxuraan yu murit wala yu tijaan wala yu xaadir daara ay alxuraan nañu ko defal fu daara nekk Sénégal man ñu inscrit sa du ma leen xam yàlla xam na ko maanaam 24 heures avant avant comité de jury bi liggéey ci laay xamee sax ñi ñi bindu a fu ne boo doomi Babacar ne mën naa caa nekk wala doomi Sang Fall wala doomi Mouhamed ñaata du ma ko xam ndax fa ñuy bindoo bokkut ak sama siège bokkut ak sama siège association bokkut ak sama daara ñu ma ci ndeyu kenn xaw ma ci bàyyi kenn xaw ma sax seen sëriñ daara donc li ñu ci def li tax ñu koy def mooy alxuraanu karim maa ngi beral nuyu moom xam na ni lii ñoo ko bokk ndamam mooy sama ndam sama ndam mooy ndamam suñu ndam mooy mooy al alxuraan moo tax moom bi mu xamee ni terrain alxuraan da def ay centaine de millions ndax moyen may na ko ko ñun su li ñu am mu néew mu bëri ñu ngi ci fësal jëfu alxuraan di ci fësal leeru alxuraan mu xam ne ñoo bokk terrain bi at mu jot mu jël loo xam dugal ko ci bis bii naka noonu alaaji sëriñ buub ñu ngi ñaanal Sénégal gépp jàmm ñaanal réew jàmm feebar bi yàlla na ko fi yàlla jële sëriñ Saliou Touré mi nga xam ne moom lañu yàlla boole ci dëkk bii muy muy leeral dëkk bi ci leeru sëriñ Touba yàlla na ko yàlla bàyyi mu jot mu yebal njabootam ñu teew mu jiitu fi yebal léppam ñu ñu teew fi ñu ngi ñaan yàlla def jàmm ci réew mi def tawfiq ci réew mi lépp luy niru fitna na sori réew mi al fitnatu naa'imatun la'ana Allahu man ayqazaha fitna mi ngi nelaw yàlla rëbb na ko ko yee xam nga wax naa ko bu yàggul ci benn sortie bu ma defoon nee naa leen ku xamoon Libi xamoon Xadafi ni mu bëri woon alal bëri armée bëri pétrole bëri dollar àddina di ko wër fu ne di fam te Libi 11 ans ngi ni wala 10 ans amuñu gouvernement dañuy rang mburu di rang ceeb di rang pétrole di rang ko indi mooy fitna xale yu ndaw muy ñuy fo di fo di fo ba tar réew ma am gouvernement ambassade yi ne woon ne bi mën na 80 ambassades yu fa ne woon représenté fa seen réew benn ambassade nekkatu fa ndax kenn nekkatul en sécurité loolu yëpp nag yomb na waaye fay ko yombul kon nañ moytu fitna Sénégal pays phare la ci jàmm Sénégal pays phare la ci woote jàmm Sénégal pays phare la pour dundal harmonie Sénégal pays phare la pour dundal dialogue interreligieux Sénégal pays phare la pour euh, naataange même boo amul lu bëri nga doyul wala nga am loolu nag mooy jàmm mooy jàmm fépp soo mënee taxaw ci sax bi def fi guddi doxantu ba njeex barki bi ma jullee ci jumaay Abdoulaye Diop bi fii ci sac bi gis naa ni moo doon ba defa def sport foofu su jaamoon woon kenn jàmm dox jàmm wax ci jàmm liggéey ci jàmm wasalaam ko ko ku ko <laughs> def man mi su dama yelwaan kenn ku nekk la nga amul la nga amul dënga wuti wut ko ci yiw nag moo gën xale yi forcé wuñu kenn maanaam yàlla moo digle sarax xale yi di laaj sarax rek état bu demee ba mën a sarax sëriñ daara yi ba ñu mën a couvrir seen daara comme ni ko yéen réew yi defee tey jii boo demee boo demee ci réewu arab yu bëri yi dañu di fay di fay ñuy taxaw jumaa yi di fay ñuy noddu di fay courant ote jumaa yi ci réew yi ko attan comme na suñu réew attanagu loolu nañaa yàlla pétrole bii ñuy wax ak gaz bi feeñ ci réew mi ba ñu war a jiite réew mi wala ñu fi nekk nii fekke ko ba mën a taxaw daara yi mais yelwaan moom kenn mënu ko jëlee ci réew mi organiser ko nag moo baax fexe ba xale yi di ci boole maanaam euh, fitna ak di fitnaal nit ñi ci buntu banque yi di fitnaal nit ñi ci buntu société yi maanaam lu ñuy defal nañu ko def si sago ki am yéene saraxe maanaam boo toogoon sa kër sax dana la fekk ci daara ja sarax la waaye sarax moom yàlla ko digle te at yelwaan it araamul waaw innama sadaxaatu tax kon nag nañ ko organiser rek bu ko def état yi aussi ñu gën a soññu lu ñu mën ci dimbali daara yi ñu def ko ndax daara ju am autonomie doo yelwaan daara ko kenn dafa kenn dafa yelwaan bu daara xam ne leen leen tey ji maa kenn maa yor añ bi kenn maa yor reer bi kenn maa yor seen seen seen dëkkuwaay kenn maay fay courant bi Mamadou Niane su amoon daara ñu war ko lépp benn ma la Mamadou Niane yelwaani waaye da ay ndongom du ñu yelwaani waaye fu ne sëriñ daara yi seen bopp dañu yelwaane luy sëriñ ndongo yi da nga yelwaane ku ñu yorul sa dara da nga wuti doola parce que am soxla am kër di lekk añ di di reer te te wutu wutu foo ko jëlee il faut nga xool ku sopp alxuraan sopp diine sopp pas-pas nga dem ne ko dimbali ma ci lii waaye ko ànd ak sago xale yi seen yelwaan gi finance gi ñu finance nit ñi daal ci buntu banque yi nañ ko wàññi waaye yelwaan moom mënta ñàkk état bi aussi maa ngi leen soññu yi taxawu euh, waaye nag ci kaw daara yi wu wax naa ko ci benn émission ci ci 7TV naa leen daara bu organisé wul ne doo neex dimbali ndax ñoo fekk Babacar Ndaw muy tabax këram nga jël garage Babacar Ndaw mu war fukki nit nga def fa téeméer ba pare neuf yëpp ngeen dem na indi indi lu may añee loolu nag loolu aussi loolu aussi maanaam désordre la waaw loolu moom désordre la ànduma ci nañ jàngal xale yi su fekkee ne euh, heure euh, xéewlu jot na te xéewul amul ñu bàyyi ñu dem fa ñu ko yaakaar yi wuti ko fa waaye lépp ci sago ak dal incha allah